jërë ngeen jëf mbokk yi teewlu si biir Sénégal di ñëw ak ci xibaar yi soxal kii di Karamba moom Karamba nag lam yàggoon di kaas ngir rek ñu daal di ko yóbboo katar mu mën a def ay affaire am ngir Sénégal daal di jël ndam li tax nag temps yëpp muy génn moom Karamba na rek moom bu dee dem Qatar rek moom am na xaalis bu mu demee Qatar mais nag moom laajut benn dërëm kenn wante nag nee na dafa bëgg rek ku ko yëg ak kaas yooyu nag mu doon def tax nag si xibaar ñu ne rek kii di président Macky Sall daal di nay utal euh, karamba ab jet privé ngir rek mu daal di ànd ak ay nitam di dem foofu sa Qatar ngir la lam waxoon mu daal di koy appliqué ci équipe national bu Sénégal moom karamba nag gannaaw ba loolu amee nee na rek Wally Seck xaar mu def vidéo ngir mu wax score bi ñaata lañ bëgg Sénégal daal di dóor mu mel ni rek kon bonne nouvelle daal dinay wàcc ci Sénégal su fekkente ne kii di karamba daal dina la mu wax ngir rek Sénégal daal di jël ndam di mën a indi coupe fii ci Sénégal